benn leader politique bu ko mës a aborté ci Sénégal ne woon naa leen bu ci ñëkk jiitu mooy préparez vous ak ngeen confronté wu ak lan mooy ñu ni coloniser nga xam ba léegi ñun seen esclave lan ngeen baal ma ci kàddu gi muy France ne naa leen préparé leen ngeen confronté les médias même de Paris même Belgique même États-Unis ñëpp ñuy yàq sunu der parce que duñu laal benn système ba nga xamante nii ça touche pratiquement ñëpp ñi nga xam te ñu ngi ci socialiste wala capitaliste système yooyu noonu lan ñun la ñu ñun remettre ko en cause def ci ngeen ni point d'interrogation parce que l'Afrique a ses réalités aussi andi benn pratique ba nga xamante ni dafay nekk référence après ëllëg dafay nekk référence ci ëllëg képp ka xam ne da ngay jóg wala jeune di def politique ci biir Afrique kon gis ngeen yéen patron yi li ngeen andi lu mu amee solo donc li ngeen andi ne croyez pas que dafa yem Sénégal rek non non li ngeen andi dafa laal àdduna yëpp. ndax laal àdduna yëpp moom mooy andi la nga xamante ni tey ak loo mën di wax ak loo mën di xew andi ngeen tey la nga xamante ni du n'importe qui moo ñëw war koo mën a osé def du n'importe ki moo mën a oser wax ko parce que bu dee yow da ngaa nekk yàgg a nekk ab formation wala nga yàgg bokk ci lobby homosexuel yi wala nga yàgg bokk ci ñi nga xamante ni genre euh, dama Sëñ Saliou maa ngi ñëw acca daw leen wala nga yàgg bokk ci ñi nga ci ñi nga xamante ni euh, ils sont financés par des multinationaux yaa xam ne ñoo tegal ñoo imposer seeni i kon doo am liberté boobu noonu alhamdulilah waa parce que bu ñëwee ñoom dañoo am liberté boobu du kenn ku leen financé ndax gis nga ñoom depuis bu ñu duggee ci seen politique ba léegi tout a changé deuxièmement ñooy le seul parti yàgg naa leen ko wax sumay live mooy seul parti ba nga xam te ni capable na ñëw tey ne sénégale yëpp kaa leen may deret sénégalais bu ci ne jóg gis boppam xam ne lii lu noble la sénégalais yi dem may deret ñooy seul parti politique bi nga xamante ni capable na on partage les gars on partage on partage mooy le seul parti politique ba nga xam xamante tey Sénégal capable ne jeunes yi ah comme que def leen dara ñëw leen nu bay jàng ni ni bayee xam ne bay mooy mooy mooy mooy dimbale askan wi bay moo mën dimbale Sénégal est-ce que yéen a ngi comprendre bu baax donc loolu di wane ne ñoom ñuy changer mbir yi te mooy seul parti politique ba nga xam ne nii il peut mobiliser des milliers de personnes sans jox leen un franc un franc quand je veux un franc nag dama ci boole juste du la jox sandis du la jox transport du la jox t-shirt du la jox dara au contraire yow mi ñëw danaan la ah am naa projet est-ce que yow gëm nga projet boobu nga ne waaw mu ne la kaay jënd t-shirt ma mën a financer sama projet kaay nga ñëw participer ma mën a finance sama projet mais na doon sénégalais doon xaalis ba nga xam leew na am na traçabilité raison pour laquelle depuis benn moment yéen gis lu tax gars yi commencé dégénérer ci Ousmane Sonko ma wax leen chaque jour Pastef dañuy teg ay affaires yoo xam ne nit ñi dañuy gën di leen bañ maanaam ñu leen di gën di bañ moom ñi nga xamante ni nekk ñu ci yoon muy opposition bi nga xamante ni doon koo envier muy parti au pouvoir ba nga xam ne ni bëgguñu koo teg bët en réalité ndax booy xool tey yéen di ngeen ñëw ce qu'on appelle ani benn système ba nga xamante ni muy lan le fait que militants yi di seen programme di ko gëm di ko porter di dem sur le terrain di sensibiliser les di engagé wu di mener des batailles comprendre ngeen donc loolu moom moo tax kon donc dañ leen di gën a bañ bi ci gën a récent moom mooy tey bi ngeen demee tey ba oser correcter lu mës a am ci Sénégal dama je je dis et je bien amul Sénégal ku fi mës a teg programme ne gars yi financé leen ma gars yi jox la dix millions ñaar yi moo doon am nga dem ci ngóor jigéen yi wala homosexuels yi. wala sàcckat yu mag yi ñu ne financé naa la waaye boo gañee li ngam seul Pastef moo ko mës a def yàlla dogal ko ci mu am cent vingt cinq millions huit cent quatre vingt allah donc loolu noonu ngeen def mu leer leen les jas les sénégalais de la diaspora gars yi doon xeeb Macky Sall leen teg ba leen jox cër mu leen ñooñu il peut influencer leur famille leur sensibiliser pour leur dire que fii ñu nekk tey dañoo bëgg a ñib si mais ñu ngi ko yaakaaree que financement yi jox Ousmane Sonko mu jël nguur gi ëllëg jël réew mi teg ko ci yoon ban ma ñu ñu mën a ñibbi si mën a investir parce que loolu lu koy firnde rek mooy Macky Sall mooy euh, Ousmane Sonko bokk na ci ay programme tey Macky Sall triché programme boobu noonu bu ko triché malheureusement mënu ko mettre en œuvre parce que amul capacité bi amul ressource humaine bi bu ko mën a teg amul technicité bi ko mën a teg muy leen muy ñu teg benn banque ba nga xam ne dañ koy jagleel ñi nga xam ne sénégalais de l'extérieur te ne woon naa leen diaspora bu gën a riche ci adduna bi Sénégal la mu liggéey la lépp bëgg a liggéey ci technique ci tactique financièrement am diaspora pour financer ses partis tax soo xoolee récemment ci sama page euh, comment dirais-je ci sama compte TikTok am na ci benn vidéo moo partagé pour vous dire que les que benn vidéo Ousmane Sonko bi ñu naan Fouta dafa sonn dafa jot a nekk ay école nangam effectivement boo demee ci yéen milieu rural bi dafay jot a am muy dispensaire école ak yëpp ce sont les moodu moodu qui financé raison boobu moo tax les gars partage parce que passe bi xaw nañu ko restreindre mais amul problème gars yi raison boobu nag moo tax les gars raison boobu moo tax les gars gars yi tout ce qu'il va faire mooy jël éliminer Ousmane Sonko c'est ça ñoom dañuy chercher dañuy jéem a chercher nu mën a éliminer Ousmane Sonko te buñ ko mënee duñ ko hésiter sax en réalité duñ ko xalaati hésiter ils vont le faire directement buñ ko mënee xaw ma ne yéen a ngi may déggam déet moo tax tey moo tax ma ne patriote yëpp li ngeen dégg tey du dara li nar a ñëw moo ko nar a ëpp lu ngeen dégg tey du dara li ngeen nar a ñëw moo ko ëppal parce que booy xool ci mbir mi tey ku mel ni ay Madiambal Diagne mu ngi ci yor journalam yor ay léppam prêt pour combattre Ousmane Sonko nga jël lan maam góor gi saaka mu ngi fi chaque jour lu génn mu ne à cause Sonko nga pare am lan am ay Ndella Madior Diouf des gens yi jaar fi même les gens yi nekkoon ci Mburok Sow Idriss Seck maintenant ils tirent sur Sonko tout le monde tire sur Sonko sans exception pourquoi parce que c'est lii moo ñëw yàqal leen seen business xañ leen seen business bi ñu xam tàmmoon nañ ko def mooy business bi classique mooy jàpp population bi en otage ñoom ñuy dundu ci teranga jàmm ak salaam seen doom yi di jàng Europe ñun suñu doom yi nekk fii ah, mbay jaar naa la bu wér la grand patriote màggal naa la màggal naa la bu wér loolu moo nekk aussi ni ñëw bu ñëwee ñoom fekkee mbay lépp mu ngi normal connexion bi son bi lépp mu ngi normal mbay fay moi signe j'ai besoin de ça waaw waaw fekkee mu ngi def mu ngi leen gars yi def leen ma léegi nag ñoom ka parce que ñoom ils ont ñu ngi koy restreindre live bi man xam naa bu baax ñu ngi koy jéem a def mais partager leen mu jàll fépp donc ñoom pexe moomu noonu lan ut lan bëggoon a def muy lan le fait d'éliminer Ousmane Sonko parce que moom il les enlace pas parce que ñoom dañoo tàmmoon jël jël population bi en otage seen doom yi jàngi Europe seen doom yi ñëwaat jiitanu seen doom yi par exemple bu jëlee le cas de du doomu euh, comment dire Aly Ngouille Ndiaye ingénieur la léegi ci lan ci pétrole ak léeg-léeg parce que xam nañ très bientôt Sénégal dina am pétrole est que papam après du ko cagé est-ce que ñun am na sens boobu est-ce que permettre nañu suñu dëkk tey ñun dafa mën a defar école xam a permettre loolu non seulement di yem seulement dem ji liggéey a am pour creuser nangam booy xool ba ci bi wala BRT ko chinois yi TER yi jox nañ ko français yi amul lenn lu mu sa jox les sénégalais ce qui veut tey jii Ousmane Sonko ne les arrange pas parce que ñun dañoo ne lépp nice tout ça donc loolu moo tax ma xamal leen leen li ngeen dégg vous les patriotes le début la day soog a door mais aussi tam ñu alerter que ñu ñëpp ñu nekk ci xolal jaune rouge mu leer xamal ni état bi fi nekk xamal Macky Sall xamal ministère am xamal préfet am xamal commissaire am xamal commando am xamal ay officier am que si vous touchez benn seul cheveu ci lu ñu dese ci as néew démocratie ak masse critique bi fi am muy le président Ousmane Sonko ak ay alliés ñun lay dajal directement ñun lay mbëkkanteel directement parce que duñ ko permettre génne gars yi gars yi vous imaginez Pastef vous imaginez Sénégal sans Pastef sans Ousmane Sonko y aura pas d'opposition y aura zéro lan moo fi am royaume moo fi am wax ma ne dynastie sax moo fi am mais royaume moo fi am parce que actuellement amatu leen benn opposant te d'ailleurs les opposants qui étaient là ñu leen di wooy opposant musuñu opposé wu musuñoo nekk en conflit avec Macky Sall ñu ngi dëggante bu baax kon donc ça c'est bien les gens de Pastef vous battez avec les médias un notez bien yéen waa Pastef da ngeen di xeex ak journaliste yi maanaam médias yi yéen waa Pastef da ngeen di xeex ak lu ñu koy waxati da ngeen koy xeex ak borom homme yi nga xamante ni waxuma nag homme d'affaires yëpp mais homme d'affaires yi nga xamante ni ñoom gouvernement bi ñoo financé woon gouvernement bi ñoom dañuy lekk te du lekk du lew yéen nga xeex ak français yi yéen xeex ak ñi nga xamante ni dañ leen di wooyee ay nitu daraja te al amaana ñoom fan ko war a jëmee jëmee ko fa kon donc yéen a ngi xeex système bu puissant yéen a xeex ak des gens fortunés yéen a xeex ak des gens influents à la fois parce que loolu damay renvoyer tuuti rek ci benn affaire ngeen comprendre que média lu tax tey ñuy dal ci ko Ousmane Sonko Macky Sall il est très intelligent qu'est-ce qu'il a fait Macky Sall est allié pourquoi je dis Macky Sall est allié ku ne xam ne ne fii en réalité lépp lu fi nekk ci industrie moomuñu ko soit français yee ko moom soit naar yee ko moom te ñoom ñëpp ku ñëw yëg rek ci état rek ñu ñëw ànd ak yow. pour di la neexal di la financer parce que ñoom des fois nit bu yëgee arrangé comme jamono lay waat dañuy financer yenn gars yi ba ñu ñëwee au pouvoir ñu lay mën di réclamer yenn affaire léegi nag boo jëlee ñi nga xam te ni ñoom ñooy publicité pour ñi mën a am ay recettes maanaam télé yi ci ay publicité la ñuy mën a jëlee ay recettes Macky Sall mun na ne carrément avec ses alliés les ministres nationaux yi nga xam ñoo doon teg fi seen industrie teg fi seen affaire mu xamal leen wala tel télé wala tel média buñ amul ci publicité parce que ñoom dañ may yàqal. parce que ñoom en réalité bu ñuy am télé sëñ as bay mën na noo mën na dañ may yàqal parce que ñoom su su suñ su il faut ñu conditionné leen ne il faut que ñu jàppale ma wala sama image jaay sama image def sama promo raison pour laquelle soo xoolee le 31 décembre bi passé Macky Sall dafa forcé quasiment télé yëpp ñu wuy si ko média yëpp ñu wuy si ko far force kum neex kum naqari ak par contre aussi tam état bi lu mu lay teg daan yu mu lay teg ak lu mu lay dakk parce que nee leen jàppee leen média yi ak télé yi ak journalistes si que ay ouvrier leen mu ngi mel ni nga am sa maçon am sa kër am sa maçon jox ko nu mu la neex la lay tabaxalee nu mu la neex la lay tabaxalee kon donc si vous croyez que yéen waa Pastef amu leen xaalis da ngeen di cotiser rek kon si vous croyez que média yi fi nekk nga xam te ni dañoo am problème recette bëri na fi tey ñi fi nekkoon yor seeni média yor ay milliards ñu xëy xëy Macky Sall gën ngeen commencé nañu étouffer seeni affaire ñoo ñooñu dafa dem ba contrer leen à ce que ñu wuy si ko far fos di def promo di def publicité am sinon kon yow en tant que média doo am publicité doo am promo doo am dara doo mën a fay say say say say employé tu ne peux doo ci génn ay perte moo la ci dugal raison boobu moo tax sites yi nga xamante ni quasiment amuñu benn publicité je dis bien sites yi nga gis benn publicité journal yi bëri dañ koy xool suba ba ngoon jot du am lenn ni publicité te war a fay ay journalistes ay deux cent à trois cent mille francs voir jëm ay quatre cent mille francs ils sont besoin ñu nekk ñu nekk ak complice ak état bi di mën di fay seen employé di mën a am ay recettes yu baax pour di ne loolu mooy wax ji parce que comme bëri na ay ñu ko ñu ko wax ñu bëri ay des des journalistes yoo xam ne dañu ba am seen i maison fas seen kalam ba nga xam am na dama préféré sax nekk ci site bi di liggéey beneen liggéey bàyyi journaliste mais di informé boo demee fa mel ni France yooyu am na fa bëriwut. Sénégal peut-être amagu fi wala ñu am na ñu koy waajal mais ñooñu seen mbir mooy la xam ne médias yi dañ lay contrôler da ngay bëgg a génne article sax ñu censuré ko da ngay gën a bëgg a dégg ñu censuré ko tey ngeen yàpp ne médias yi fekkoon nañ sérieux nañ normal nañ tey jii wax problème 94 milliards duñ dem enquêter def ci documenté ci génne ko accéléré teg ci pression c'est de l'information de taille mais comme que tey jii ñoom duñ ils vont pas ils vont pas que lañ ci waroon lañ waroon a investir temps boobu ñu ci waroon a investir ñoom dañuy jàpp ne la parce que ñoom ay entreprise la nga xam ne pour récolter de l' argent pour gagner xaalis point très bas ça ne les ñu informer juste et équitable ils s'en foutent kon donc ne comptez pas sur les ne comptez pas sur les ñu annoncé leen wala boog nangam bu ngeen xool ba ci revue de presse yi revue de presse yi pour moi revue de presse tey ji da ngay xool am ñu fi àndoon ak Idriss Seck bu ñu gënoon def revue de presse sant yàlla mais gis nga bi ñu ko bàyyee bu ñu génnee te def revue de presse rek gis nga nu koy nu koy xasee tey ba bay va bii nga xam dañ ko def ñëpp nangu ne Sénégal lii lu possible la lu yokku la lu am solo la luy jàngal ndaw yi la xoolal dañ koy cof dañ koy cof xalaatuñ ko ñoom ils sont là pour dégg Sonko ah na def na mais action yu noble li nga xam te ne ñu ngi koy def Pastef ñu ngi koy def ñoom en réalité duñ accepté génne ko tey ñu dugg ci sauver banque de sang yi ci Sénégal yëpp des milliers de patriotes ñëw dugg ci terrain bi ñëw dugg ci hôpital yi maye période Covid ñu ñëw maye ay dret lu raar ñeme ko engage hôpital yi maye ay dret wane wuñ ko de média yi dañ koo cof nanguwuñ cee bind nanguwuñ cee def benn article nanguwuñ ko documenter pour xam c'est quoi le secret de Pastef à ce que ba mën a arriver à ce point mun a convaincre xam nga yéen ngi comprendre tey ñu def benn acte bu gën a noble di def politique demander à ce que les sénégalais yu gëm suñu projet ñu financer projet Pastef est-ce que gis ngeen médias yi ci nekk au contraire dañoo bëgg di tourner objectif bi di wax naan est que leer na est que am na traçabilité nangam dama leen koppar fan ñoo koppar fan la nekk Sénégal kenn ku ci ne foo nekk ak loo mën a ne loo cotiser man mi gis ngeen jiran boobu népp mu am képp ko cotiser nekk ci droit nu bawal ak loo mën a cotiser dafa defoon liste di ko publier di est-ce que man ñeme naa jël turu nit di ko publier te joxe wu est-ce que tey ñeme naa jël nit nit di ko publier mu joxe 4000 francs ma jéem a dagg 2000 est-ce que am naa fi itam en temps réel te ni ma ko doon defee ñun waa Baol noonu la ko waa Thiès doon defee noonu la ko waa Mbour doon defee noonu la ko Sénégal bi doon defee pour que mu am traçabilité par ñu ko jaaree fu wóor tekki nag yor ay source boo ñëwee Baol kenn ku ci ne da ngaa am source ku mu neexee jël sa source ku mu neexee ba ko en tout cas diw bu joxe bind nañu jox leen source baa nga fa Antoine John gi ne noo c'est que financement yi bu état bi leen il faut ñu dissoudre Pastef ñu xam ne buñ ko laalee musiba am mais dama ne ñun fa nu nekkoon ba tey ña ngi fa nekk bougé wuñ mais gis nga li ngeen defoon ci euh, comment di xees ci action bu baax boobu au lieu que jaay yi saluer ko. wax ne lii mën Sénégal lii la politicien war a doxee nii la Sénégal a doxee képp kuy politique nii nga war a mën a convaincre les gens ba tey sot ko ñu mën a financer say say say say projet ils n'ont pas xelu nit di ko jaay xel di ñu teg xel maanaam en réalité na ma yàlla jégal journaliste xar lan nu jàppee mbee lan nu jàppee mbee mbee xar lan nu jàppee en réalité parce que su doon respecté nañ si Sénégalais yi dinañ joxe information bu tax naan information du nekk fi naanu ay police yu ñàkk fay na xam nga yéen nga may mais parce que ñoo jàpp ne dañoo yor population xar ba tax ñoom nekk ay loup yor seen big nekk lan ay ay comment dire ay ay canine pour ñu ñu a tax di mat nañu di coob nañu ñu mu leen neexee c'est ça la réalité c'est ça la réalité léegi nag kii mu ne ma Macky du jaal si pexe bi c'est vrai frère loolu moom fawumu ci parce que benn opposant lan dese d'ailleurs sax benn opposant lan mës a am benn opposant la mës a am parce que opposant bi li tax ñu am opposant bi mooy dafa ñëw il a changé manière bu ñuy apercevoir politique manière bu ñu koy defee manière bu ñu koy utiliser ak manière bu ñu koy ak manière bi ngay nekkee pour mun ko pratiquer ak sa statut propre proprement yow di yow nit ki yow sa jëm bopp. tey c'est pas n'importe qui moo jóg tey def politique barki alxuraanu karim yaa xam mbay mii di yàq Ousmane Sonko nag essayé def du am cinq personnes El Hadj nekk ci média yi mbal mbal mbal mbal mbal ñu ngi koy invité mu ñëw ànd ak ay nitam dox bu matee cent personnes barki rasulaay ma xaaj a jéppi ay doomam jur gëm seen bopp sax ñu ko gën a jëpp d'ailleurs Sonko a pris quinze pour cent des Sénégalais alors que même si les élections les élections ont été trafiquées et à la fois mais nag du Pastef mooy jóg xeex parce que sénégalais ñoo war a xeexal seen bopp seen i voix c'est important sénégalais yëpp ñoo war a jóg Pastef y compris waaye Pastef war ko jiite sénégalais yëpp ñoo war a monkoo ne ñun suñu voix diw leen ko jox du nangu kenn ku ko censuré kenn ku ko téye donc loolu dina wane rek yéen patriotes yi pare leen. nangul leen ne ñëpp dañuy takk seeni kaw média yi borom doole yi tubaab yi nga xam ne noo coloniser Sénégal ne duñ ko bañ yi def lu leen neex duñ la jàngal sa maam duñ la jàngal sa culture duñ la wan yaay kan dan naan la yow nitu dan lay bañ ba di la incité naan la ci golo nga juge jugee wala boog ñu naan la boog ah euh, fédéral ba ennee amil nangam nangam te yàlla xam ne ñoom duñ jàng su benn maam résistance bu Lat Joor defoon pendant des années pendant près pendant plus de quinze ans jàpp tubaab bi di leen teg ay di leen tegal ay cascade di leen bëgg a yóbbu yombal xayam tubaab bi di ragal fu ñuy jaar ba ñuy jaar sax il faut ñu xalaat ba bëgg a dee quinze ans par code dañ koy trafiqué sax di yàq der sunu maam Lat Joor naan nañ ko jam bal ci c'est pas vrai léegi nag comme que nag Pastef et là pour changer les choses je dis bien pour changer les choses cordon ombilical bi nga xam mënu lii ak ñi nga xam te ni dañuy sucer suñu sang via ombre ombilical bi au ñuy jox ñu lekk mais dañuy sucer loolu lan moo ko waral moom mooy en en réalité moom mooy euh, comment dirais-je euh, euh, loolu moom loolu mooy comment dirais-je dafa arrangé li nga xam te ni moom mooy les occidentaux arrangé wu li nga xam ne mooy politiciens de classe yi nga xam te ni ñoo fi nekk loolu mooy enjeu bi tey léegi nag lan lañ dafa mën ci génn. xam nga ci mën a def mën ci génn il faut que les patriotes ñu wàcc sur le terrain dugg ci village yi dem ci marché lu may sox suñu t-shirt sensibiliser nit ñi pas ci passif mais les enjeux yu Sénégal nekk d'ici 2024 suñu gaz suñu pétrole suñu ressources yi yëpp du manière général sensibiliser leen suñu potentiel su suñu cosaan ak suñu aada imagine leen tey rek ñu jëloon suñu doom yi dañuy jàngal seeni i maam di leen jàngal ñooy kan fu ñu bàyyee ko ak lu nekk importance bi nga xam yaay kan fan nga jëm ak dayoo bi nga am ak nan nga mën a nekkee chaque jour dama koy faral di wax dama ne ak séeréer dëgg bu njëkk bi la bu ne lay xam xon feet kam xon maanaam demee danaa dee dégguma séeréer bu baax genre mais da koy def obligatoirement mais dem nañ tey ba def ñu xool tàmmal ñu tubaab te tey ngeen jégal moom sama mbokk Dakar yi ba Dakar boo sonee king king king gars yi ne kooka la nangam dem nañ ba relafit ñu parce que lañ jàngaloon na suñu culture ak suñu façon de faire nga xam te ne foofu fanaan gars yi fat la léegi nag ñu ñu bëgg a delloo suñu cosaan suñu aada xam ñooy kan jàng suñuy maam jàng suñuy référence jàng suñu xam-xam te am nañ ko te mën nañ ko mais tey qu'est-ce qu'ils vont faire dañ naan booy dañu arrangé wut que booy bu ñuy dëgg bi la ñuy teg parce que képp koo xam da ngaa bëgg a nekk PCA da ngay def concours boo ko mérité nga jàll ak foo mën di bàyyi na ko mën mérité ko jàll ba pare nag après nag ñu teg si bët ci yow transparence nekk président mooy toog fee diw neex na ma bopp bi dafa ñool ndongo neex na ma dafa ndelu Issa dafa mel nii Ekon dafa mel nii Mbaye Garam dafa mel nii ah ah yum yum yum bi yaay dafa mel nii ah non ok noonu na ne danga maa koy fal fii maa koy fal déedéet déedéet defewuñ ko noonu donc Pastef loolu mu andi mu doon lu nar a xam dafa nar a leer lu nar a jëm Sénégal kalam arrangé wu leen parce que nee naa leen ki nga xam da lay jàngal xam-xam boo ko bee xam-xam mënu laa wax xam-xam xam na xam may déggam déet mool yow mool yow mu xamul géej boo duggee di ko won nu muy nappee bu ne bu la reetaanul bu ne day xam ne bu yàggee da ngay lap loolu mooy réalité bi moo tax ñi ñu ëppati ñi bëgguñu conscientiser sénégalais bëgguñu réformer système éducatif bi bëgguñu réformer nu ñuy apercevoir maanaam suñu culture bëgguñu xool ñu changer nan la ñuy façon nu ñuy pratiquer les choses c'est la réalité nan ko waxte dee léegi nag ñaan bu ñuy ñaan moom mooy lan patriote yi nan bu bu buñ dugg ci divertir ñi dañuy divertir buñ ci nangoo dugg dama ne wax ji xam nga lan la dil tey moom mooy ki nga xamante ni mooy Mansour Faye mille milliards ko jox ci Covid 19 bi mu dépassé 69 milliards d' après lu wax bañ ko ba ceeb bi ci ay camion oto mbalit lañ ko jox ak job si moo ne ne jox lu ñu cër loolu la war a ñëw justifier ko devant les Sénégalais mais kenn duñu divertir kenn duñu divertir dama ne les les 6 mille milliards de Aliou Sall loolu la ñuy ñëw divertir justifier ko les de Mamour Diallo loolu la ñëw justifier ko. dama ne mbay Prodac lu mu war a def loolu ñëw justifié ko marché bu ñu alloué muy terre bi plus de mille huit cent milliards yu njëkk a alloué ko français yi teguñu ko fent dawagul ba tey di poussière loolu ñu war a ñëw justifié ko ñu xool ko ci ñu fuyee ko de foo ko encombre pour mun a xam exactement fa suñu xaalis dugg BRT bi njër suñu jox ko chinois muy amul benn njariñ moo loolu Dakar ak transport mu jël na trois milliards presque te booy xool Macky nee naa leen bi muy gëm jox leen ko moo tax may leen ñi amuñu xam-xam mun amoon xam-xam di leen cherche nit ñi ci beneen angle mais pas plutôt ñu topp ab nit nangam nangam topp ab nit mel ni ay ñu gis dëmm yu gis yàpp mais au lieu de ça débat yi la ñuy am bàyyi masse critique pour que ñoom ñu mën a orienté am mën am tuuti xam-xam mais comme que amoo xam-xam boole ci ñaan soxor da ngay gën a torox ndax toroxtaange mënut a weesu yow yow en sooy conseil des ministres décentralisé yi li nga dikk Sénégal yëpp na bu ma ko defee ci dëkk yi doot ñu manque dispensaire du manque hôpital du manque ay tali du manque nangam nangam yëpp nga wax ba ñëpp d' accord nga jël fu mel ni Diourbel nga dikk ko milliards de francs CFA ñu dajale lépp ñu ko calculer Sénégal yëpp dañ leen dikk mu nekk plus de milliards mais eggul milliards déjà loolu la dikk yow nga toog fi bi boobu léegi depuis jox la plus de vingt-huit mille milliards tu Tu n'arrives même pas, ben conseil des ministres, ay promesses, ne tenir ses promesses. Tu n'arrives même pas à le faire. Parce que si nous avons le cas de Diobal Taïfi, nous avons dit que nous avons dit que nous avons 5000 jeunes qui ont été en train de se faire. Le nom Javel, y a des fa nek. Donc, nous, au lieu que nous discutions ñun ci idée yoy non sur des choses techniques ak choses yi nga xamné day permettre sénégalais bi tay mu avancer wala sénégal avancer. Duñ ko def dé. Tay dañu ñëw au contraire ci la ci la ñu ak sénégalais kii dafa ñaaw kii dem na fii kii solo dàll yi kii wax na nangam kii wax na nangam par su suñu leen invité débat dañuy daw bu leen invité débat dañuy daw tey boo demee jàkkaarloo ça se voit que danoo dem ba xoola xoola jàkkaarloo ñu teg fa birima birima taxaw wax leer mu naan man Macky moom mu envoyé ci média pour mu wax ñu bàkk mu ñëw toog mu ñëw toog yéen ngi may dégg ci biir foofu noonu di def lu ko neex en réalité sëñ Fallou am sëñ Fallou yéen nga may dégg tey kooku noonu tey dafa toog ci biir TFM di wax lu ko neex lu mu ko neexee te kenn mun ci dara yéen ngi dégg yeneen médias yi tey ñu toog dañuy taxaw di wax ci Sonko la nga xamante ni teguñu ko fenn en réalité xanaa loolu mooy am léegi loolu mooy ragal féete day xañ a wërsëg ñoom am na déjà fu nu far boo bëri yeneen télé yi dañuy def seen promo candidat ak ki nga xamante ni moo yor seen sutura moom lañuy def promo mais na ma yàlla jéggal ñu ëpp ci sénégalais yi bëggu ñoo gis dëgg parce que gis dëgg bi mooy ki nga xam ne dafa lay woo ci indépendance totale ki nga xam ne lay wax lan ci politique monétaire ki xam ne lay wax politique éducative di wax ci di ci wax la nga xam te ni dërëm toju ci ki nga xam te ni dalay wax naan la suñu nekkee suñu am suñu nangam milliard transfert de compétence lañu def pour sénégalais yëpp mën ci bénéficier kun ëllëg kun demandé nga defar ñu terre bu subaa ñoo koy defar suñu bopp tey waxoon naa leen ci sama live tey géej gi ñu jaay ay deux milliards et dama ne bu ñu jëloon terre bi rek jënd laal wax plus de cinquante wala bu ñu jëlee plus de un milliard boog ñu jënd ci dina napp ton ton bu ci ne ñu jaay ko trente cinq euros wala quarante euros kilo bi kilo bi kilo bi j'ai dit bien Sénégal secteur ñaata secteur ñoo ci mën a dox ñaata secteur dañuy Sénégal tey amuñu bateau yu capable dem nappi ton jaune yooyu te ton jaune yooyu Europe yëpp da ko soxla te Sénégal lu ëpp. waaw wala déet ñu jaay suñu géej deux milliards kilo tomb ne ñu jaayee ko presque ay cent cent cent cinquante à peu cent cinquante tey imagine tey ñu doon mille milliards yu ñu def ci teer yi nga xam te ne amul solo ñu distribué ko jëndi ko mille bateau bateau bu ci ne un milliard mën koo jox ay GIE wala ko mën ko jox pêcheurs ñu dem ji nappi thon jaune yi est ce xam ngeen ñaata temps la ñuy mën a récupérer vite fait suñu investissement boobu na am ci retour d'investissement ñooñu danañ mën a nappi thon jaay ko européen yi te ba duñ ko napp rek jaay ko de danañ ko napp transformé ko dañ koy napp ñëw jaay ko usine de yi dèjà dina am ay ñi nga xam dañ leen employé te ñun employé danañ fu leer liggéey ci sécurité parce que am na bato yu am mu méngeeg jamono ñi nga xamante ni aussi tam dañ leen a jël ñi nga xam te dañ leen a jël usine yi ñu jaay ñooñu ñaata lañu lañu jël ak ñu koy jël di ko exporté di ko yóbbu Europe ak Europe bi ñëw fii di ko transporté wala boog ñu ñu am ay moyens ko transporté di ko yóbbu Europe gis ngeen chaîne de valeur bu ñu ciy créé mais duñ ko def te à chaque fois Pastef foofu lay woowee gay yi nan la ñuy def sur chaque article nan la ñuy def sur suñu ressource boo mën di gis ñu mën ci def ay chaine de valeur nan la def pour mën ci def agité pour mu mën a jëriñ sénégalais yu bari am jeexital ci suñu économie ak suñu développement Pastef foofu lay woote mais on n'est pas là à divertir les sénégalais on n'est pas là à dire sénégalais diw dafa ñool diw dafa ñuul diw dafa nangam parce que ñun dépp ñu arrivé ci chaîne politique ba léegi depuis ñu arrivé ci seen politique ba léegi non bu ko fàtte loolu baaxul eh, bébé depuis ñu arrivé ci seen politique ba léegi yéen ngi dégg ñun sunu mission mooy bu ñëwee on n'est pas là à dire que Macky leexi dafa ngand xam ne ñu ne xam ne ko soxlawuñ loolu ñun on est là à dire ah, ñoo seen politique ba léegi lan la ñuy wax mooy Macky def nga lii du nii wala sàcc nañ ci nii wala nangam nii est-ce que ñu comprendre kon donc ñun lu ñuy wax fu ñu koy teg fu leer teg ko fa nga xamante ni amul jiixi jàkk amul sikki seer dañuy ñëw teg ko fu leer fa nga xamante ni am na solo am na sala am na salaam am na jeexital ci sénégalais bi am na njariñ ci suñuy doom xam nga yéen nga may déggam déet tey jii dem na ba nga xamante ni ci suñu école yi moo wax ko tey ngeen dëgg Jurbel ba léegi mu ngi am xam ngeen kortu A corte B corte A corte B boo jàngee tey jàng suba barke rasulillahi ba tey mu ngi am suñu établissement yi xale yi doon faa fees di doog trois par table quatre par table mujj def ko corte A contre bee xale yooyu nan nga leen mën a former dañu ba nga xam ne dañoo dem enseignement obligatoire tey ñu def ko six à seize ans léger ñi nga xam ne mooy xale yi nga xam dañoo am trois ans en six ans ñu waroon a installé ci milieu préscolaire ça veut dire que petite enfance bi nga xam ne ci leen lay commencé ci yow jëmbat lu am solo si àdduna dem nañ sax ba dañ ko bàyyi bu ñoom fàtte nañ ko ndax seen divertissement yi ñuy def Pastef technique la xel la xam-xam la Pastef ñu fi nekk dun ay cuune danoo xam mën lu ñuy def dun ay cuune kenn ku ci nekk ci domaine ba mu nekk non seulement dañ ciy jub bala ngay bokk Pastef souvent ñu bokk Pastef xool leen dafa doon ay gens yu naqari deret gëm seen bopp mënoo leen a giñ dara ñooñu ñoo adhéré wu ci Pastef des vrais patriotes des vrais panafricanistes ñoo ñëw adhéré ci Pastef seet leen lu ma leen wax à part ñooñu keneen di gis ñu ci boppam ci Pastef te di nga gis ñu pare ñi financé Pastef ce sont des gens là moo xam ñu nekk à l'étranger moo xam ñu nekk à l'intérieur du pays je veux dire les sénégalais de l'extérieur ñoo nga gis ñu adhéré ci cause bi ñoo nga gis ñu nekk ci cause bi duñ ci wàññi dara gëm ko nag kon gis ngeen différence bu nu am ay ñi il dañuy def politique pour gagner seen xaalis pour am position am assise di buum di buum ci kaw askan wi ñun nag dañ koy def pour jariñ askan wi en réalité donc nag ñoom lii ñuy def pour tooxal Ousmane Sonko wala li ñuy def pour yàq deram tuuti nañ ci ndax tuuti ci mooy lan ki nga xamante ni dafa ñëw taxaw amul lu mu def mooy la man taxaw leen dama ñëw ay nit woo ma ne ma kaan def politique may leen man de politique dafa ma ko caaxaan ñoo ñoo ko bu doon caaxaan duñ la woo mu ñëw ñu ne tànn critères yu ñuy tànnee ku jiite parti bi waa Pastef taxaw ne képp ku mën di tànn da nga doon xam ba nga juddoo ba léegi kenn mënu laa taqal dara dara ñu gis que moom ak ay morom yu bari loolu moom am ci biir mais morom yëpp d'accord na kii moo leen gën a gëm yàlla jullit ak xam la ñu nangu ne ñoom ñëpp que kii kat ñu ñëpp yem ñun ñu jub leen kenn mënu noo giñ quoi que soit kenn mënu def ci ñun lenn ba mën noo tëj ndax doo dégg benn membre Pastef wala responsable Pastef bu ñu jël accusé ko quoi que ce dégg gu leen ko de dégg gu leen ko mais dans les autres ministères ak ñenn ñam chaque jour ngeen dégg doomu diw diw nijaay diw nangam def naq su doon ci ci dëkk bi mais ñi ci des ñoom ñëpp ñu ànd maa nen ko leen lii def exception entre moom ak ñeneen ñi moom moom gëm yàlla ak bi muy dund muy leen dëgg gu muy dugg rien que dëgg bu muy dund ñu tànn ko ci loolu d'abord ñu ñëw muy def déclaration wax ko Sénégalais yëpp dégg mu ne vérifié naa industrie yu gën a mag ci senegal ay sokk si mag foofu yëpp amul fenn fenn fenn fu ma mës a taxaw ñu may ma fukki dërëm te ñenn di leen jàpp ñu war a fay senegal ay waa aha dama ne nga fay milliards wala nga neexalit vingt millions wala trente boo ko gën a neex mais Ousmane Sonko musta accepté loolu est-ce ngi dégg taxaw ne la def naa 15 ans de service vérifier entreprise yu gën a mag ci senegal mais amul benn entreprise bi may fukki dërëm wala fu mës a jëlee fukki dërëm soxlaw ko ci benn waxtaan sax ma foroy ko ci ñi xam bokk na ci kilifa yi nee na ma Ousmane Sonko mës naa dem fenn koo jot mu dog ñam vérifié woon bu ko jox tàndarma mu bañ génn jëndi lekk bi ma ko wax gars yi waxuñu ko sax ci télé bi. waa ñëw ne ko dog nekk fii nangam xanaa doo jullit mu ne ko sama liggéey laa nekk su ma ci paree mën naa nekk mais bu ma nekkee sama liggéey damay teg sama ak ak sama digganteeg suñu borom raison bu laajte su ma laalee lii damay laalu xaraam parce que damay rompre instant bi bàyyi ma liggéey ba pare ku ko gëm yàlla rek ko mën a def mu taxaw déclaré patrimoine ne man laa am benn oto la am ñaari compte yi laa am dama ne Macky xaw leen bu baax. Karim Wade presse la woon presse presse la woon presse Sénégal amul pouvoir yëpp am relation yëpp fu ne mu jóg mun faa dem Qatar France Amérique fu ko neex Karim Wade daagu woon fa Macky Sall bi mu ñëwee mu def sàcc wala ñi si sekk na dafa sàcc walla nangam Macky Sall da koo tëgg ràpp far force sénégalais mënuñ ci dara yéen a ngi dégg tey jii ñu jël ñi nga xamante ni moom mooy lan muy Khalifa Sall Macky Sall bi ñu ñëwee ci Khalifa Sall en réalité yéen a ngi dégg dafa ñëw fexe ba giñ ñoo ko problème gestion affaire bu ndaw ba xam yàgg naa am mairie de Dakar mu fexe ko cee takkal parce que am na ci porte mu tëj par force kenn mun ci dara am ay preuve am ndeysaan xam nga ñooñu dañuy ñëw fekk leen sax mais Ousmane Sonko moom moo ñëw défier leen ne leen fu ngeen gisee ñëw leen tëj fu ngeen gisee wër leen gars yi dem wër fu ne mënuñoo gis dërëm fu ne ñu dugg fa mënuñoo gis dërëm fu ne ñu wër fa jëm ku ne mënu gis dërëm loolu kenn nit rek moo ko sañ fii ci Sénégal taxaw di politicien ne fu ma gisee fu ma mësa jël nanga mu état nan ma ñëw tëj te liggéey naa ci administration liggéey nekkoon impôt et domaine ay ay moroom nekk fa nekk ay milliards mooy leen fu ma fu mësa jël fukki dërëm ñu wër fu ne mën ñu ko gis moo tax gars yi ba ni ay ñoom El Hadj Diouf ak ñoom dañuy fen naan ay terrain nangam nangam nangam dama ne amul ku ñuy may Sénégal terrain te amul traçabilité amul wala koo jaay mu feeñ amul te terrain bu ñu koy alloué nit moo fay nekkam lépp dafay nekk nan waxante dëgg loolu moom rek moo ko ñemee taxaw ne la durant li may exercer yëpp 15 ans fukki at ak juróom musuma lekk dërëm état wër ba sonn mënu koo am dara yemuñu ci mu ñëw di leen mbéjek ak ay xam-xam yu kenn mënta dindi ak ay tàngoom ay joomaay ay matar seen ay nangam gars yi taxaw yor seen xam-xam di liggéey liggéey bu sell teg ko ci yoon ay biram soleil et autres sama gars yi ñoom Omar ñëpp gars yi ñoom si sa ngaari gaa yëpp nekk ci biir nekk ci di ko ñafee di teg lu leer ay si seen gaa yëpp nekk ci gëm lu ñuy def teg ko fu leer yaa may dégg ñoom bu ñu demee foofu bu ñu demee ba toll foofu noonu ñoom ñu war fu ne pour jëm koo takkal mun ñu ko takkal ñu ne comme que mun ñu koo takkal nañ ko jéem a giñ salafiste ñu giñ ko salafiste moom bugg saxoo ay diine wala ay péeteem mais ñu gis ko proximité bi mu am ak waa Daaru Muxti proximité bu mu am ak chef religieux yi proximité bu mu am ak waa Ñaseen proximité bu mu am ak waa Touba ak waa Tiwaawoon ñu xam ñëpp seereel ko boo Mbacke yu fay moo ci mujj seereel ko dëgg bu mu xam ci moom xam ma yéen nga ma déggam déet mu ne kii gis nañ ko salafis mais salafis bu doxut noonu ko gis ne gees moo koy financé ñu dem ba ci biir gis na waa Pastef lépp lu mës a am consommé ko ñoom ñoo ko financé bopp ñoo ko cotisé wala ñoo jaay seen i wala ñoo ko joxe wala ñoo bay wala ñoo góorgóorlu dajale yaa ngi dégg ñu xam ne foofu doxul ñu giñ ko terroriste <laughs> dem ba di ko monté ñu gis ne ñii kii leen ko giñ tey doxul parce que giñ leen ko terroriste mais ça servir leen quoi que parce que lan giñ leen ko sénégalais conscient nañ que ñii dañuy théâtre ñii sànneex la ni sànneex la ni toppandoo daal ci Ousmane Sonko parce que may amateur lan Ousmane Sonko dafa nekk mille pour cent ñoom ñu nekk 0,0001 pour cent en réalité xam nga yéen ñu may déggam de ñu pare ci loolu. ñu ne ko giñ affaire yi 94 milliards xam nga giñ 94 milliards loolu problème état kan mooy état état mooy Macky Sall ak ay gouvernement dama ne xaalis Sénégal moo ko sañ génne kan moo ko sañ a signé ma ministre baak directeur ba fa nekk ak président ñoo ko sañ a signé lu ci yoonu Ousmane Sonko ci 94 milliards yi moom mu xam dëkk bi tekki nag ci daloo si dëgg yi ñu xam ne kii désormais muy ensemble wala feneen fépp fu ñu sàcc ti pour jéem a rawale booy bi bu ne toq ci noppam te am na ay nit yu gëm seen bopp ñu koy jox information bu ne toq ci noppam mu siiwal ko sénégalais gars yi daw deuxième mu ne booy bi fi nekkee dañuy torox ndax duñu gagné dara dootuñu sàcc dara mu raw gis ngeen ba tey liñ leen di giñ gaay ñu toggaat ba ci yàgg ñu commencé leen a giñ ay financement illicite ñe leen ko giñee ñëw démentir affaire ñu toggaat ba yàgg lu génn ñu ne sax à cause de Sonko étudiants yi sax bu ñu génnee di grève nga xamante ni étudiants yi avant Sonko di ñëw lañ fi réew ay ay Balla Gaye nangam ñu ne c'est à cause dégg ma ne nawet bu baaxul ñu ne à cause de Sonko sax bu ne leen ñu à cause de Sonko est-ce que ni may baax seetlu leen chaque jour ci média yi amul benn opposant mu tudd Sonko Sonko Sonko Sonko parce que pourquoi parce que Sonko